sëriñ njaaña busso sëriñ njaaña busso mi ngi gane àdduna ci atum 1910 ci al azar ndaam sëriñ njaaña busso waajuróom wu góor mooy sëriñ mbàkke busso waajuróom wu jigéen mooy soxna njaaña géy mu feeñ jamono ci atum 1910 ci dëkk bi di al azar ndaam moom sëriñ njaaña busso am na nag mu bokkal kii di soxna njaaña géy mi nekk waajuróom wu jigéen soxna njaaña géy laata muy ñëw ci loxoy sëriñ mbàkke busso sëriñ ibrahima mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke kajoor mooy ki ko njëkkoon yor ba am na kii di cheikh ibrahima mbàkke ñu koo xam ci sëriñ mbàkke kajoor ak njaboot ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ muudu njaaña mbàkke ibnu soxna njaaña géyi ibnu cheikh ibrahima mbàkke mbàkke kajoor ak ku ñuy wax soxna saynabu mbàkke bintu soxna njaaña géyi bintu cheikh ibrahima mbàkke mbàkke kajoor ak ku ñuy wax soxna mariama mbàkke bintu soxna njaaña géyi bintu cheikh ibrahima mbàkke mbàkke kajoor kon ñett ñii la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ñett ñooñu mu bokkal waajur wu jigéen bokkuñu waajur wu góor doomu cheikh ibrahima mbàkke mbàkke mbàkke kajoor la muy kenn ku góor ak ñaar ñu jigéen ñaar ñu jigéen ñoo ñu kenn ki di soxna Seynabu Mbàkke bi matee dem kër ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim lañ ko jébbaloon ba am naa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim benn doom ñu koy wax soxna may munatu Mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim ak soxna bu mbakke soxna Maymunatu Mbàkke mi bintu sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ci armeeri géde yi ñu denc kii di soxna Mariama Mbàkke bintu soxna Njaañe Géy bintu Cheikh Ibrahima Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Mbàkke bi matee dem kër ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim lañ ko jébbaloon waaye amut ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim njaboot ginnaaw bu fi cheikh ibrahima mbàkke mbàkke kajoor bàyyi ko lañ fab soxna njaaña géy mi nag jébbal ko sëriñ mbàkke buso ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ mbàkke buso dëkkoo kii di soxna njaaña géy am nag njaboot nag ak kii di soxna njaaña géy ñu ràññee ci ku ñuy wax elaaji abdu karim buso imnu soxna njaaña géy imnu sëriñ mbàkke buso ak ku ñuy wax soxna xadi njaaña buso bintu soxna njaaña géey bintu sëriñ mbàkke buso ak ku ñuy wax soxna aminta buso bintu soxna njaaña géey bintu sëriñ mbàkke buso ak sëriñ ibrahima buso ibnu soxna njaaña géey ibnu sëriñ mbàkke buso soxna aminta buso mi ak cheikh ibrahima buso ñoom ñaar ay cheikh lañ woon ak ku ñuy wax soxna sawdatu buso bintu soxna njaaña géey bintu sëriñ mbàkke buso ak moom sëriñ tuuba seexul xaddim buso ñu gën koo xam ci sëriñ njaaña ibnu soxna njaaña géey ibnu sëriñ mbàkke buso juróom la bokkal soxna njaaña géey ak sëriñ mbàkke buso ak moom muy juróom benn ak ñett ñum bokkal soxna njaaña yi te bokkuñu sëriñ mbàkke buso ñum bokkal soxna njaaña géey ak kii di sëriñ mbàkke buso muy juróom ñi ak moom muy juróom benn elaaji abdu karim buso yàgg na fi lool waaye nag bàyyi wu fi njaboot soxna xadi njaaña buso moom lañ joxoon sëñ abdourahman mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mu am ci sëriñ muudu mbàkke raxmaan soxna aminta buso ak cheikh ibrahima buso ay cheikh lañ woon ak soxna sawdatu na gudd ñu fan moom sëriñ njaaña buso bi mu feeñee jamono ci atum 1910 waajuróom wa sëriñ mbàkke buso ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim la ko tudde ginnaaw bi nag dem na ci ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim di ko wax ne soxna njaaña géey de am na gan waaye tur wi yow mii laa ko duppee ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim di xamal sëriñ mbàkke buso lii de mooy ñetteelu tur woo ma tudde sëriñ mbàkke buso di ko wax ne ko waaw mu ne ko sëriñ mbàkkem soxna njaaña mii de dana gudd fan dana am barke lu ko jiitu nag sëriñ mbàkke buso tudde na ñaari yoon doonoon doom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye ñaar ñu ñu gudd ñu fan moo tax bi soxna njaaña géey amee doom mu làbb li tur xam ngeen tubaa seexul xaddiim mag ñi bari nañu ko ci tudde doom waaye ci turandooy mag ñoon ñu ci bari sëriñ mbàkke rek lañ leen daa woowe loolu itam tax na sëriñ mbàkkem sëriñ mbàkke buso sëriñ mbàkke lañ ko daa woowe waaye buñ koy wax sëriñ mbàkke buso day mel ne waajuram wala ñuy wax ñu bari nag di ci indi turu waajur wu jigéen wi moo tax ñu daa wax sëriñ mbàkkem soxna njaaña waaye olof moom ko moo tax nag mujj gi ñuy wax sëriñ njaaña buso waaye sëriñ mbàkkeem soxna njaaña la ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim itam lañ ko duppee sëriñ seexul xaddiim buso ñu gën koo xam ci sëriñ njaaña buso ndax li waajuram wu jigéen tudd soxna njaaña géey bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ mbàkke buso ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim mi turandoom la ko yit ci njaareem ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim moo ko dalal alxuraanul karim moom sëriñ tuuba seexul xaddiim buso ñu gën koo xam ci sëriñ njaaña buso ginnaaw bi nag la ko waajuram sëriñ mbàkke Bousso jël jébbal ko magam sëriñ Assane Bousso sëriñ Assane Bousso mi magu sëriñ Njaaña Bousso moo ko jàngal alxuraanul karim ginnaaw njàngum alxuraanam itim magam sëriñ Assane Bousso moo ko jàngal xam-xam bam géeju lool ci wàllu xam-xam ak alxuraanul karim moom sëriñ Njaaña Bousso lépp lu aju ci am njàngam magam sëriñ Assane Bousso moo ko ci def ginnaaw bu mu jàngee ci loxoy magam sëriñ Assane Bousso dafa wéy nag desandi ci ron waajuram wow di sëriñ Mbàkke Bousso ci Touba Guédé sës rëkk nag ca waajuram wa di sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Njaaña Bousso sax nekk nekkoon na bëkk néegu sëriñ mbàkke buso ndax xam ngeen na sëriñ mbàkke buso léppam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la ba tax na ak njabootam itam da leen séddale woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu jël sëriñ muudu buso mi nekkoon ab taawam bàyyee ko njaboot gi mu nekk jëwriñu kër gi mu jël sëriñ mu laay buso jébbal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem ngir muy def nag lépp lu ko war ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom sëriñ mu laay buso ci ndigalul waajuram sëriñ mbàkke buso mu jël doomam ji di sëriñ asan buso féetale ko daaray alxuraan ji ak njàng jàngaleem xam-xam bi ndax sëriñ mbàkke buso kat mag ñim séqaloon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim rawatina ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim fonkoon na ko lool nag ngir xam-xam bi kon nag doomam ji di sëriñ asan buso la féetale woon loolu ba tax na sëriñ asan buso bari na lool ci yoonu murit ñoo xam ne nii moo leen jàngal moom sëriñ mbàkke buso nag mu jël doomam ji di sëriñ njaaña buso sësal ko rëkk nag ci moom ngir mu nekku bëkk néegam nekk ay tànkam ak i gëtëm ci lenn ci mag ñi koy seet si laneen li des ci njaboot gi nag topp ci seeni mag kon bëkk néegub sëriñ mbàkke buso ba ni mu génnee àdduna sëriñ njaaña buso la sëriñ mbàkke buso ci atum 1946 boobu nag la waajuram wa génn àdduna di sëriñ mbàkke buso mu nekk nag ci ay ron magam di liggéey di leen xoole sëriñ mbàkke buso ba ni mu toogee xalifa ci atum 1993 nekk nag ñeenteelu xalifa sëriñ mbàkke buso wuuf nag ay rakkam taxawu nag taalibey waajuram wa di sëriñ mbàkke buso ba ni mu génnee àdduna ci atum 1996 nekk na xalifab sëriñ mbàkke buso ci diirum ñeenti ati yàlla ndax 1993 ba atum 1996 sëriñ Njaaña Buso aji na màkk nag ci atum 1977 keroog ba muy aji màkk sëriñ Moodu Abdu Xaadir Mbàkke mi nekkoon taawub Cheikh Abdu Xaadir Mbàkke la àndaloon ak mbooloo mu baree bari yi ci dëkk bu sell bii di Touba biñ demee ba màkkatal mu karam daje na fa sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang doomu maam Ceerno Ibrahima Fàtti Mbàkke ndaamal daaru la ci aj googu di atum 1977 sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang bind na ci ab téere di wax solos aj googu mu aji woon ci atum atum 1977 daje woon fa ak sëriñ Modou Abdou Khadir Mbacke ak sëriñ Njaaña Bousso téere boobu sëriñ Basiiru Mbacke Anta bindoon ci ajug ba mi ngi ko tudde Rixiyatul Sahida soo demee ci xatu fukk wa jàpp fukkeel baak benn ma ngay wax ne bisub juróom-ñetti fan ci weeru tabaski woowu ci atum 1977 bis boobu nag la njëkk a gisanteeg sëriñ Modou Abdou Khadir Mbacke ak sëriñ Njaaña Bousso ci Màkkatal Mukarrama ak ku ñuy wax sëriñ Daam Bousso moom sëriñ ma Kandi Bousso am na moomeeloon ndax sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñaŋ mi ngi koy wax ci biir téere bi muy ku ñuy wax Balla Mbaay bisub keroog di juróom-ñetti fan ci weeru tabaski mu ne bisub keroog dañoo dox ba daje waaye keroog na xaw nañoo sonn ndax li ñu dox moom moo bari waaye bi biñ gisanteeg sëriñ bu Buso ak sëñ Moodu Abdu Xaadir Mbàkke coono boobee ñu sonnoon daal dem na ndax kat ay mbokk daje nañ ci fu xataxat muy màkkatal mukarrama mu ne keroog nag coono boobu ñu sonnoon dafa mujj deñ ndax mbokk yooyu dajee sëriñ bi mi ngi wax ne keroog nag la wax kii di sëriñ Moodu Abdu Xaadir Mbàkke mbàkke moom sëriñ basiiru mbàkke anta ñang di ko wax ne mbokk gi de dinaa ko sàmm dinaa ko wattu ndax kat suñ borom mi ngi wax ne ak mbokk képp ku ko sàmm moom dana la sàmm surtout maa kóllëre gi sax fi mu tàmbalee muy màkkatal mu karama te moom sax waajuróom laa ndax ci wetu yaayam kan maamam laa bu doonee ci wetu waajuróom wu góor nag waajuróom laa kon nag danaa sàmm kóllëre gi kii di sëñ njaaña buso nag moom mi ngi koy xamal ne moom nag dana sàmm kóllëre gi amoon ci maam ceerno ibrahima faati ak sëriñ mbàkke buso mu jàppe sëriñ njaaña buso sëriñ mbàkke buso sëriñ njaaña buso jàppe ko maam Cerno Ibrahima Faati mu ne nag ci diiru biñ gisantee ci màkkatal mukarrama ba tàmbalee ànd saa su ne daal ci bépp bërëb bu ñu dem di ñaan day gis rek sëriñ njaaña bu sa di jooy mu ne nag loolu yéemu ko ndax ku xam waajuram di sëriñ mbàkke bu so bu sëriñ njaaña bu sa jooyee du la yéem keroog bi ñu taxawee taxawaayu arafa moom sëriñ siiru mbàkke anta ñang ak kii di sëriñ moodu abdu xaadir mbàkke bisub keroog ñoom dañ doon ree waaye kii di sëriñ njaaña bu so moom da doon jooy bi nag moom laaj na sëriñ njaaña bu so lan lay jooy mu koy xamal taxawaay bii mu gis tay de da koy nuroog bisub yow yowmal xiyaam ndax kat su boobaa ñëpp itam nii la ñuy mel daw wutali suñu boroom mu ne bis booboo la ko arafa di fàttali histoire bu yaatu daal la sëriñ basiiru mbàkke antañag nettali ci téere bi mu tudde rixiyatul sahida soo demee ci xët wii di fukk ak fukkeel ba ak benn ñu teewlu li sëriñ basiiru mbàkke antañag bind ci digganteem ak sëriñ moodu abdu xaadir ak sëriñ njaaña buso ci biñ gisantee ci màkkatal mukarama ci téere bi mu bind ngir jagleel ko aj googu ñu aji woon soo demee ci xëtu fukk wa ak fukkeel ba ak benn am na lum cay nettali ñu teewlu ko rajaana ila bayti mutawifina burhan sayfuddin haysu laqina baadul ixwaan alqadimina min almadinati almunawara wa hum mouhamad mbàkke ibnu cheikh abdoulxadir mbàkke ma rafiqihi sëriñ njaañi buso ibnu cheikh mbàkke buso wa sayidin ndam buso ibnu cheikh masamba kanni buso bil idafa ila rajulin axar yuqaalu lahu balla mbaay waxat laxaw baad al alam fi dalika alwaqt fa rahabna bihim wa rahabu bina bi mahabatin wa shawqin azimayni lima fi liqaayi alixwaani min alxibtati wa surur wa xaasatan fi biladi alxurba fa nasalu fi xurfatina ama mouhamad mbàkke ibnu cheikh abdoulxadir mbàkke faqad ittafaxtu maahu ala muhaafazati wa tawkiidi rawaabit al uxuwa wal mahabba allati jarat baynana wa dalika fi daaxil masjid al xaram inda salaati al asr wa fi haada al liqaa taahadna xiina saaka bi haadihi al munaasabati saida wa xaafizuhu insha allah li ajli qawlihi taala wa awfu bil ahdi isaa ahadtum fa ahra inda al masjid al xaram wa li ajli annani jadduhu min jihati ummihi wa abuhu min jihati abihi kama taarifun wa kadalika Cheikh Ndiagne Bousso xaqatuhu ala ihyaa'i wa tajdid al alaqaat al qadima allati kaanat tarbutu bayna walidayna al sayxu ibrahima faati wa sayxu mbàkke Bousso آياتنا إن شاء الله لأنه كان رجلا صالحا عابدا تقيا دائما بكى في عرفة وفي منى ورأيته بعد الفراغ من الصلاة يوم عرفة حين توجهنا إلى موقف عرفة يبكي ودموعه تتساقط على خديه ولم أتعجب منه كثيرا لأن الموقف مدعاة للدموع دموع عباد الله المخلصين ولأن والده الشيخ مكي بوسو كان دائما البكاء لنصيبه الكبير من خشية الله تعالى فعلمت حين حينئذ أن الحية لا تريد إلا الحية وأن الشبل في المخبر هو النفس الأسد وأنه يشبه أباه ومن يشابه أبوه فما ظلم طول الله عمره وساده صلاحا وتقوى woon ba tey boo lee ci téere bii sëriñ basiiru anta ñang bind ci aj gi ci xëtu fukk waa ñeent ca téere ba ba tey ma ngi fay netti li ci seen aj googu nu mu meloon sëriñ basiiru anta ñang bu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci téere bi mu bind ci aj googu muy ajug 1977 ga ba nëg ni ma ngi cay nettali rek coono boobu ñu dajoon ak mbégte moomu ñu nekkee woon foofu ci màkkatal mukarrama ma ngay wax ne ci juróom-ñetteelu fanu tëbaski bi tam tolloog bisub arafa bi mi ngi àndoon ak sëriñ daam buso sëriñ moodu abdu xaadir mbàkke ak sëriñ njaaña buso mook sëriñ moodu abdu xaadir mbàkke dañoo réeroo woon ak délégation senegal bi booba nag ñu nga jëmoon ci dëkk bii di minna heure tim fukki waxtu la woon ci suba gi nee na ñoom ñaar ñu yëndoo wër di xool drapeau national bu sénégal wala kenn ne bisub keroog mook sëriñ Moodu Abdu Xaadir Mbàkke xiif lañ yendoo ak wu mar sonn lool ñu wër wër drapeau Sénégal mënuñu koo gis wala kenn ku nurub sénégalais seen coonab keroog ba nee na daal kudut suñ boroom mënoo koo xam seen jaaxle keroog ga itim kudut suñ boroom mënoo koo xam nes tuur nag lañ gis ku tudd Alaaji Sekk bokkoon ci commission aj gi dëkk itim ci dëkk bi di Ndakaaru moo ne leen yéen ñii da laay seet ñoom itam ñu doog a noyyiwaat na ko alhamdulillah ñu doog a àndaat a sëriñ daam buso moom sëriñ ma sàmba kandi buso ak kii di sëriñ njaaña busoo moom sëriñ mbàkke busoo sëriñ basiiru anta ñang nag ma ngay wax ne la des ca aj gi nag réeroowaatuñ fa benn yoon ñoo àndaat nag ba ni aj gi jeexe ñu teewlu fi sëriñ basiiru anta ñang bind wax jooju boo demee ci téere mu bind jagleel ko aj googu di aju 1977 gi ci xëtu fukk waa ñeent téere bi nag mi ngi ko tudde rixiyatul sahida wa fi thamin min shahri sil hijja irtaxaltuma rofaxaayu muhammad mbàkke ibnu cheikh abdul xadir صباحا فذهبت أنا وابني محمد مباكي نبحث عن أعلام التي تدل على ماهية الدول التي تتمركز حولها واصلنا عملية البحث عنهم حتى خرب الزوال دون أن نحصر على أي أثر وما أشد ذلك الجولان وما أكبر العناء التي الذي عانيناه وذلك بعد هذا في منى أنا وابني محمد مكي ونظرنا إلى الأعلام وما رأينا إلى أن رأينا العلم السنغالي ودون أن تقع على أحد من بقية الرفقاء ولا يعرف أحد مدى الدهشة التي لاحقت بنا ولا يعرف أحد مدى الدهشة التي لاحقت بنا إلا الله ثم لا يعلم أيضا مدى المشقة إلا هو تعالى فما زلنا نجول جولان الهائم ونسأل كل من لاقينا ونلاحظ بدقة إلى كل عالم ولكن بعمد الله بعد الخروج من المسجد التقينا بأحد الرفقاء يقال له الهاجي الساكن في دكار فتنفسنا سعداء حين قال لنا كنت أنتظركما وأبحث عنكما فاصطحبنا نحن الثلاثة إلى الرفقاء الآخرين الذين كانوا قريبين هناك جدا وقضينا الليلة هناك في منن وفي الصباح يوم التالي ويوم هو يوم عرفة وقد صادف يوم السبت توجهنا نحن والرفقاء إلى موقف عرفة ba tey ci liggéeyub Serigne Ndiagne Bousso Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu toogee xalifa général des mourides yëkkati woon na caabi jumaa ji jox ko sëriñ njaaña buso sëriñ njaaña buso sax mi ngi taarixal bis boobu soo eggee ci mbind mi mu bind mi ngi wax ne bisub alxamis ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru tamxarit ci atum 1407 ci gàddaay gi dëppoo woon ak mooy alxamis ñaari fan ci weeru octobre ci atum 1986 la ko cheikh abdul ahad mbàkke jébbal jumaay tuubaa ji mu ngay wax ne nag moom moo mujj nag nekk koo xam ne ni moom mooy liggéeyal sëriñ tuubaa ci barabam bi ci ndimbalul cheikh abdul axat mbàkke ginnaaw bu mu ci waxtaaneek rakkam ji cheikh abdul xaadir mbàkke mu ragal yàlla mi mu ngi leen ji ñaanal nag yàlla defal leen yërmande te boole leen ci sëriñ tuuba muy wax ne nag ñoom ñaar cheikh abdul axat mbàkke ak rakkam cheikh abdul xaadir mbàkke ñoom ñaar ñoo diisoo wax ne dañoo bëgg xool kuñ jébbal barabub sëriñ tuuba seexul xaddim bi dañuy jébbal barabub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim nag am na ay qualité yu ñuy seet ci moom qualité yooyu xel daje moom moomu di Serigne bu Bousso qualité yi nag benn ba mooy fu mu jaar nekk mbokk mu jege ba ca toppitim day xam dayob doomu aadama yi xam seen tolluwaay li mun munta ñàkkitim muy xam-xamub diine fu mu jaar xam ko mu nekkitim ku farlu te sawar te dogu nag fa séenee yor barab bi ak yeneen ak yeneen i qualité yiñ doon seet ci doomu aadama bi qualité yooyu nag ginnaaw bu Cheikh Abdou Lahat Mbacke waxtaaneek Cheikh Abdou Khader Mbacke ñoom ñaar seen xel daj na kii di Serigne Ndiagne Bousso farlu ak wattu barabub seexul xaddim bi sëñ bu sa nag ma ngay wax ne yaakaar jooju ñaari jëmm yooyu am ci moom ba jébbal ko barabub sëriñ bu mag bi boobaak léegi daal ma ngi cay farlu te di ca góor góorlu jot na ne la ñaari góor yàlla yooyu xalaatoon ma nga ca ma ngay wax ne itam ginnaaw bu fi ñaar ñooñu bàyyi ko te sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nekk fii itam loola rek la feddali nee na bi ko Cheikh Abdou Lahad Mbàkke jébbalee barab bi ba noppi dafa am nag lu ko ca dig Cheikh Abdou Lahad nee na ko lu ñu gën a wormaal barab bi te sëriñ a jox worma suñ boroom di gën a sotti nag naataange ak xéewal da nga fexe nag ba caaxaan ba mu am ci biir barab bi góor ñeeg jigéen ñi buñ ci jaxasoo lu wër barab bi itam lépp luy mbumbaay ak xumbaay itam na ko sori heure bu ko askan wi defee daal xéewal ak naataange dong nag moom mooy gën di sotteeku ndax seexul xadim ko luñ ko gën a wormaal suñ borom di ñu wormaal kaddu yi am solo nag la cheikh abdou lahad mbàkke waxoon sëriñ njaaña nga la waay murid yi nañ ko dégg te jëfe ko ndax kat réew mi metti na lool la cheikh abdou koy jébbal barabub sëriñ tubaa seexul xadim bi ci atum kàddu yooyu nag sëriñ njaañe bu sa da koo taarixaloon ngir bañ mu réer barab bi nag ñu ngi ko ko jébbal ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru tamxarit di bisub alxamis ci atum 1407 ci gàddaay gi dëppoo nag muy jeudi ñaari fan ci weeru octobre ci atum 1986 kàddu yi nag sëriñ abdulaxat mbàkke moo ko waxoon sëriñ njaañe buso sëriñ moodu maamun buso imaam nag la ko sëriñ njaañe buso jébbalaatoon kàddu yi sëriñ moodu nag moo ko bind ci aw këyit ngir yaxanal ko ñu teewlu kàddu yi sëriñ Moodu Maamun Buso bind ci ndigalul waajuram sëriñ Njaaña Buso ci kàddu yu ko Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ak Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke dénkoon ginnaaw buñ ko jébbalee barabub Seexul Xaddim bi ngir ak worma lamhatun hanil masjidil jaamia bi tuubal mahrusa taqdim sëriñ Njaaña Buso xaami ximaahu bi maa fihi darihul mubarak fi yowmi ljumaati samin wal ishrin min muharram al haram sanata alf wa tisamia wa sittatin wa samanin tasallamtu xaadima alxadimi fi darihi almubarak almuhtaram wa zalika baada mushawaratin bayna alxalifati salis xinaysin alcheikh abdul ahad mbàkke almaaruf biljiddi wal istiqaamati wa quwati alazimati walgirati ala ddin wa bayn alimaami almuwaqar almushaar ilayhi bilbanaani fi zuhdi waltaqwa alcheikh abdul xaadir mbàkke taxammadahum allahu birahmatihi wa alxaqahuma bilxadim radiallahu anhu xaysu ittafaqa ala taayini man yatawalla alqiyaama bi mahaami almasjid isa tawafarat ladayhi majmuatun min asuruti lazima minha kawnuhu axaa aqrabin yacrifu aqdaar annaas wa yanzilahum manazilahum wa yakunu mulimman bidaruriyati min alfiqhi alislami wa yakunu xaasiman yastatimu حماية الروضة الشريفة من كل ما يتنافى والآداب اللازمة لها ومنذ وقوع ذلك الاختيار علي ما زلت أبذل قصارى جهدي في هذه الخدمة التي اختارني لها الخليفتان السابقان التي اختارني لها الخليفتان السابقان وأكد الاسم من جديد الخليفة الحالي الشيخ صالح مباكي الذي نبتهل إلى الله جل في علاه أن يبقيه فينا طويلا ويسدد خطاه حتى تتحقق آمال المسلمين فيه آمين وعلى هذا الأساس نبني عملنا لكي نحقق المرامي التي نتوخاها لأنه ما من شك في أن في تعظيم حرمات الله خيرا لنا وهذا البناء بكل جدارة يستحق التعظيم والاحترام لقول الشيخ القديم فيه واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد إلى أن قال واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتك عني anni kayda kulli ziantida ila xeyri salik mimma yutilu fiina zikrahu amma alxalifatu salis alseyxu abdul ahad mbakki faxad waadana bi anna cheikh alxadim radiallahu anhu kullu ma xadarnaahu xaqa xadrihi bima fihi tabjil wa tawqir tatawala alayna niamullahi tabaraka wa taala wa kadalika yantafi alayna aljadb walqaxat bi fadlihi bi xaysu abxadna an marqadihi almaymun kulla ma la yaliqu bi janabihi min muxalatati nnisaai birrijal wa ahadisa dunyawiya wa laqul kalam li annahu fi xaali xayaatihi albarsaqiya yajduru an yuqaala fi xaqihi xawla alxaayil wa inni la astaxyihi wa turbu baynana kama kuntu astaxyihi xiina yaraani wa kadalika mimma nulaaxisu fi makaanatihi xawluhu fi haadal maana an nafsihi tayib xayaati bila mawtin wala dararin wajal bi fadlika muksira bi qurbaana wa qaala aydan wa alini wa ahli man yuinini waltakfini jumlata ma yuhinuni ila gayri zalika mimma yuallimuna bi wujubi ixtiraamihi alayna fi kilta alxaalatayni ala sawa duaa allahuma yaa man sirruhu fi xalqihi ihfasna an al axyaari kulliha xata natamakkana min nayli ridaaka wa nutaabi sayra fi hadihi alxidmati aljalilati allati narju biha xayra dunya alaaxira wa mataana bi sixati wal aafiya xata nastatia ada hadihi almuhimma bi kulli kafaatin bi jaahi alxadim aysatil maxdum amin wasalaam xurira fi awaaxiri safar alxayr sanata alf wa arbamia wa ihda asara hijriya almuwaafiq li sadis wal isrin min septembre sanata alf wa tisamia wa tisin miladiya almustaktab sëriñ Njaañ Buso caabi jumaa ji itam ci loxoom la nekk ba nim génne àdduna ci atum 1996 laataa muy génn àdduna nag am na daayira bu judd ci biir jumaa ji ñu tudde ko muqaddimatul xidma lii di jumaay Tuubaa itam jiite na ko benn yoon ci dundam mooy ci atu 1990 di ajuma ji cheikh abdou xaadir mbàkke mujjee fekke cheikh abdou xaadir mbàkke moo ko woolu ba mu ñëw di ko wax ne sëriñ njaañ tey yow yaa may wuutu ci jumaa ji mu dëppoo woon ak ajjuma fukki fan ak juróom ci weeru korite ci atu 1410 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom ci weeru korite ci atu 1410 ci gàddaay gi dëppoo woon ak muy vendredi 11 mai 1990 vendredi 11 mai 1990 ajjuma ji gi la cheikh abdou xaadir mbàkke mujjee fekke ci jamono ajjuma jiitim sëriñ njaañe buso moo jiite ajjuma ci ndigalul cheikh abdou xaadir mbàkke ndax boobakat moo nekk xalifa général des mourides barabu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim boobu sëriñ njaañe buso yoroon am na benn bis sëriñ buso be buso di doomu sëriñ njaañe buso wax na cheikh abdou xaadir mbàkke ñëwoon na fa ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim te yoon woowee mu fa ñëwee yëkkati woon na juróomi junni jox sëriñ njaañe siyaare si barab bi seen dàll ko fa denc ngir mu sori barabu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim loola nag suñ ko defee wor ma rek la ñuy gën a dolli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim loola itam taxoon na sëriñ njaañ bu sa jëfe woon ko noonu ba tax na itam daana def diirub lim yor barab bi wor ma yi ak dàll yi ci barabub sëriñ tubaa seexul xaddim bi sàmmoon na ko am na beneen bis cheikh abdou xaadir mbàkke ñëwaatoon ci barab bi doon siyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu génnee barab bi giseeg sëriñ njaañ bu so ma ngi koy xamal ne sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddim de bég na ci yow ginnaaw waxi cheikh abdou xaadir mbàkke yooj nag defoon na aal kii di sëriñ njaaña buso ba taxoon mu solu dàllam dem seeti cheikh abdul ahad mbàkke keroog bi muy jub sëriñ touba cheikh abdul ahad mbàkke cheikh abdul ahad mbàkke mi ngi koy xamal ne sëriñ baa jàmm la ndax yow ko daawoo fi ñëw te kenn woowu la mu ne ko waaw dëgg la waaye sëriñ abdou xaadir mbàkke moo ñëwoon léegi ci barab bi di ma wax ne de ku baax ki sëriñ touba seexul xaddim kontaan na ci yaw te gërëm na la cheikh abdul ahad mbàkke dafa jóg giñ wax na ko sëriñ njaaña buso loolu la cheikh abdou seexul xaddim kontaan na ci yow yow njaaña buso bu ko cheikh abdou xaadir mbàkke waxee rek baayam moo ko ko wax lii itam jaar na ceeg cheikh abdou lahad mbàkke ak cheikh abdou xaadir mbàkke moom sëriñ njaaña buso ba tey ci liggéeyub sëriñ njaaña buso lii di màggalug poroxaan di màggalug maamam ci nekkinam taxawaloon na soxna jaara ay daayira yu bare bari ngir jagleel ko soxna jaara bisub maamam boobu di màggalug poroxaan ñu manitim di ko dundal ba nëg ni daayira yooyu mu taxawaloon njabootam gaa koy dundal nekkoon na itim liggéeykat di yar ak di jàngale tax na itam amoon na ay tool ci dëkk yu wuutee wute ñu ràññee ci mbusoobe ci mbàkke bawal quartier bii di ñànka ñu gën koo xam ci màdd yana itam amoon na fa ay tool di fa bay suuf sii ñu tudde belel nayde amoon na fa suuf si yaatu di fa bay ak di fa liggéey ku ñuy wax elaaji biti joxaane moo ko ko joxoon ba nëgëni sax ak njabootam ña nga fa belel nayde gi nag ci ñu ko xamul bu baax a baax moo tollook abatuwaar bi ci wetu kër kàbbu amoon na suuf itam ci bangaaj foofu itam daana fa bay kon sëriñ njaaña busoo liggéeykat la woon liggéeykat wattub barabuk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim gim doon wattu tax na itam lii di yoonu murit mu séqoon ak ñoom jàmm ba daa dem lanteeg ñoom ak di fekk lanteeg ñoom alaaji baara mi nekkoon juróom benneelu xalifa xaadim rasuul tudde na ko doom moom itam tudde na alaaji baara doom sëriñ muudu mbàkke moom sëñ abdourahmaan mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itam tudde na ko doom muy sëriñ njaaña mbàkke moom sëriñ muudu mbàkke abdourahmaan sëriñ njaaña bu so itam ba tey wëla réew sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma la woon ba tudde na sëriñ cheikh mbàkke gaynde gaynde fatma doom doom jooju mu tudde sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma moo nekk ci këru mbàkke bawol gi nag di mbusoobe nekk fi wuutu waajuram wa ci lépp loo xam ne ni waajuram wa daana ko def moo xam jàngale alxuraan ak ñaan yim daa def sëriñ abdu lahat xaritam la woon sëriñ abdu lahat mbàkke moo ko joxoon lii di barab bi ak cheikh abdou xaadir mbàkke tudde na cheikh abdou lahat doom fabaat na ab sëtamitim tudde ko cheikh abdul ahad mbàkke sëriñ abdou ay turandoom yu ñuy wooye sëriñ mbàkke am na ci ay turandoom yu ñuy wooye xaadim ak tur wii ko ñépp xamee muy njaaña doomu sëriñ mbàkke buso ba ak soxna njaaña géey teñ tudde woon ko ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim mu nekk ñetteelu turandoom ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci jëmm ji di sëriñ mbàkke buso mi ngi génn àdduna bisub altine ñaar fukki fan ak benn ci maamu koor ci atum 1417 ci gàddaay gi altine ñaar fukki fan ak benn ci maamu koor ci atum 1417 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 4 novembre 1996 lundi 4 novembre 1996 ci feebar bu ko tëraloon ñu yóbbu ko ci hôpital principal bu ndakaaru ci hôpital principal bu ndakaaru boobu la génne àdduna ci bi 5 heures du matin jotee ba teg fanweeri minute ci altine ji 4 novembre ñu jëlee ko ndakaaru ci altine ji ba seddi talaata 5 novembre 1996 dëppoog mooy talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci maamu koor ci atum 1417 ci gàddaay gi sëriñ abibu mbàkke imaam moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci wetu waajuram wa sëriñ mbàkke buso ci gédee ci xilaaf ak sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke moom sëriñ njaaña buso ay xalifaam nag nii la tëdde kim tudde waajuram sëriñ mbàkke buso ñu koy wax sëriñ gédé buso moo ko wuutu ci atu 1996 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te taxawu ko te sàmm ko te yàggal ko ci toogaayu sëriñ njaaña buso boobu tam ànd kook ay rakkam doom turandoo ak jarbaat sëriñ njaaña buso am na nag bis buñ koy fàttaliku muy li ñu tudde ak màggal bis bi nag ñi ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wii di weeru maamu koor ñu koy amale ci dëkku waajuram di tuubaa gede màggal gi itam màggalu bëccëg lay doon bis boobu nag lañ koy amal ngir di ko ca fàttaliku ak di ko ca ñaanal ñi ñaan ci doomu sëriñ mbàkke buso ba ak soxna njaaña géy yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram bi